asalaamaaleykum maa ngi tudd Amadou Thiongane di directeur mode africaine couture balaa may ñëw ci mode africaine couture Amadou Thiongane di benn euh, jeune styliste nekk euh, juddoo ci benn euh, village ci Fouta ñu koy wax Seedo Sebbe yaroo Dakar jàngee fa màggee fa. donc defee sama formation à Dakar euh, fi ñu toll nii ma dëkk fii ci Mbour di fi exercer sama métier créer fi école de formation en stylisme coupe ak couture ñu tuddee ko mode africaine couture euh, yàlla teg ñu ci bopp bi ñu jiitu jiitu ci. par rapport ak école bi euh, ñu ko créer depuis. 2013 2013 ah la ñu créé école bi euh, depuis boobu ba léegi yàlla mi ñuy defal sutura ay ndaw yu bare bare bari jaar nañ fi macha allah ba jàng fi ba tey ñu ngi liggéey di jëriñ seen bopp di jëriñ seen ay mbokk donc objectif bi loolu la woon ñu ñaan yàlla gën ñu dëgëral rek bañ gën ko mën a continuer ba ci kanam a kanam incha allah école bi nag dinañu fi def couture coupe stylisme ak modélisme donc dinañ fa def aussi coiffure euh, bientôt bëgg nañu installer aussi informatique incha allah euh, ci foofu lañu la ñu toll tey nag ñu nekk suñu préparatif u défilé défilé de mode bi nga xamante ne at bu jot dañ koy def parce que ku ne école ku formation ne diplôme te ku ne diplôme ne remise de diplôme ñun nag suñu remise de diplôme defuñu rek remise de diplôme tout court mais dañuy def benn exposition benn euh, défilé de mode su ko defee élèves yi nga xamante ne ñoo jàng ba seen jàng jeex euh, balaa ñu leen di remise defal remise de diplôme dañuy présenter ñoom aussi xam-xam bi nga xamante ne am nañ ko fii ci ci école bi daal di dem euh, won ko ci kanamu autorité yi ci kanamu seen mbokk seen am di jàmm ci kanamu sénégalais yëpp wane ko donc ñu door leen a jox seen diplôme incha allah bi mooy neuvième édition bi donc ñu war ko def ci 10 février bi euh, ci centre culturel bi donc préparatif yi dafa metti dafa metti euh, dafa metti ah ci tout les bords parce que même élève bi day métti ci moom parent d'élève bi euh, day métti ci ñun aussi trop waaw parce que dinañ ci def ay sacrifices yoo xamante ne euh, bu dul woon amour ak xam li ñuy def donc duñu ko jaral mais xanaa di jaajëfalaat rek parents d'élèves yi ak élèves yi nga xamante ne jéem nañu comprendre ba xam euh, nan la ñuy adopté woo affaire bi ba tey ñi ñu ngi ci seen trois ans ñi ñu ngi ci seen deux ans ñii ñu ngi door a dugg donc mu nekk loo xamante ni lu lu métti la quoi waaw physiquement dafa métti financièrement dafa métti mentalement dafa métti parce que da ngay xalaat non seulement da ngay xalaat mais da ngay def ay démarches mais aussi da ngay da ngay frais voilà donc kon dafa métti ci côté yëpp que dafa métti ci côté yëpp ñu ngi jaajëfalaat parents yi bu baax a baax a baax a baax ci jàppale bi nga xamante ne ñu ngi koy jàppale seen parents yi parce que ñun li ñuy def nii ñoom rek ñoo tax ñu di ko def pour bañ a bàyyi benn benn porox ndollu boo xamante ne bu ëllëgee mën na élève bi mën na ci am regret ci wàllu jàng métier parce que lépp loo xamante ne modd la rek ah tey euh, ñun war nañ ko jàng fii ba bu ëllëgee du ñu soxla jàngiwaat ko wala du ñu soxla di woowaat nit pour mu ñu koy defal donc ñun noonu la ñuy noonu la ñuy jàngalee te foofu la ñu bëgg élèves yi di fa kii te euh, ñu ngi sant yàlla baax parce que majeure partie si parents d'élèves yi comprendre nañ ko te loolu moom moo ci ëppoon solo euh, yaakaar naa li nga xamante ne ñu ngi koy def ba ne déwén mooy dixième édition bi donc yaakaar naa su fekkoon nit ñi adopté wuñ ko comprendre wuñ ko xëy na doo agsi fii parce que défilé yombul ay millions moo koy def euh, loo xamante nag ay millions moo koy def bu fekkee danga ko def benn def ko ñaar dem ba neuvième édition ba bay naan maa ngi waajal sama dixième édition donc kon xëy na nit ñi adopté nañ ko comprendre nañ ko défilé bi mois bi muy am ñëpp xam nañ ko léegi euh, ban jour lay doon rek lañuy ñuy laajte mais ñëpp xam nañ ko mois bi février la euh, donc kon adopté nañ ko bu baax a baax Euh, pratiquement xanaa euh, yokk rek mais li ñu leen di wax toujours mooy ñun ay jàngalekat lañu xooluñu lu neex benn élève parce que suñu xoolee lu neex kenn rek dinañu ko yàqal ba bu ëllëgee daf ñuy mujjee mere pour bañ loolu am nag tax na euh, lépp lu ñu war a def pour ñoom ñu am xam-xam dañ koy def suñu suñu waree Euh, wax ak ñoom ci dal noonu la ñuy def suñu waree wax ak beneen ton bi aussi noonu la ñuy def pour que ñu xam ñoom euh, li ñu nekk euh, ban taxawaay lañ ci war a am voilà mais heureusement ñoom aussi ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ sérieusement ay jàmbaar lañ rarement nga ci gis koo xamante ni di nga ko wax yenn wax yi mën na am wala dina def yenn jëf yi parce que mën naa ne am na ci ñoo xamante ne xëy na ci ci ñetti at yëpp benn yoon wala ñaari yoon la ñuy def erreur te xam nga ne loolu erreur mënul ñàkk donc kon euh, nekk na loo xamante ne daal pratiquement amuñu lenn loo xamante ne mën lañ leen ko wax xanaa ñaan rek yàlla defal ñu sutura ñun ñëpp kenn ku ci nekk xol bi nga am donc yàlla fay la ko voilà parce que yaakaar naa loolu la loolu la quoi. conseil bi mooy euh, euh, li gën a compliqué mu ngi ci seen kanam parce jàng benn étape la mooy dafa am loo xamante ne xamoo ko woon nga dem wuti ko pour jàng léegi après bi nga jàngee ba pare léegi lenn moo la dese mooy da nga war a taxaw woon àdduna yëpp ne man xam naa te loolu mooy da nga war a lancer benn défi te défi boobu danga ko war a da ko war a matal lancer défi soo gisee may wax lancer défi mooy ki nga xamante ne tey danga ne man damay damay ibbi par exemple école wala damay ibbi atlé nga xamante ne li loolu boo ko defee ngay da ngay ñëw ne àdduna yëpp man diw man maa ibbi lii euh, mën naa sama métier donc soo waxee loolu rek soo defee loolu rek lancé nga benn defi waaw man damay wax ne saa yoo ibbee place rek lancé nga défi défi boobu nag woote la te comme woote la xamoo kan mooy ñëw kon loolu lenn rek moo ci wóor mooy nga xam d'abord comprendre nga te olof Njaay dafay wax ku ñeme rek dañ laa déy waaw te ñoom it li ñu war a def ci ñoom def nañ ko te am naa yaakaar ne xam nañ ni ñu war a def pour àgg fu sori donc di ñaan rek yàlla yombal ah, yàlla jàppale leen euh, ku ci nekk yàlla defal la kem tolluwaayu xol bi nga am ci bi ngay jàng waaw état ah pratiquement man damay wax ne li ñuy def nii donc ñun moom lañ koy defal man dama koy wax toujours parce que euh, état aussi ñun la. ñun ñooy état te ñu ngi def li ñu war a def xanaa suñu njiit yi gën ñu bàyyi gën ñu bàyyi xel rek parce que tey soo xoolee école bi ni mu yaatoo fi mu toll euh, tey am na lu ñu ko doon tegee loxo. tey am na fu bari ci Sénégal mën na am sax euh, mu mu génn Sénégal donc bu fekkee agsi nañ ci foofu ah donc état rek Euh, loolu rek taxawaay boobu rek la mënoon a am pour ñun donc su ko defee aussi baax na su ko deful aussi ñun ñu ngi jéem fi ñu commencé woon euh, tey dépassé nañ ko agsi nañu fi ñu agsi te am naa yaakaar ne ni ñu yoon bi ñu jaar buñ ko bàyyiwul dinañ àgg fu gën a sori donc ñun loolu la ñu gëm parce que réew mi dañu fi juddoo yaroo fi màggee fi réew mi def lu nekk ci ñun ñun aussi en retour ñu war a def dara pour réew mi yàlla mi ñuy sutural ñu ngi jéem loolu voilà état aussi na xool rek li nga xamante ne war na ko mu def ko euh, ñu ngi def ay jéego mais xëy na euh, ni ñuy organiser woo ak euh, ña ñuy jiital pour ñu def yenn mbir yi moo tax du ñu mën a am résultat man loolu laa gëm parce que loolu rek laa gis ci ci ci réew mi quoi mais état ku nekk xam na ne dinay dinay jéem mais jéem boobu booy jéem di def dara il faut nga am koo xamante ne dafay àggali loolu fa mu jëm mais bu fekkee li ngay jéem wala li ngay bëgg a def loxo bi nga ko jaarale setul wala wóorul donc loo mënti defit du feeñ donc man loolu rek laa gis euh, xanaa rek ñu gën a liggéey ci côté boobu incha allah. waaw xanaa di jaajëfal ñëpp rek di leen jaajëfal yéen ngeen jóge ndakaar ñëw ba fii ah euh, ñoom Idi vraiment di jaajëfal ñëpp daal. vraiment ci taxawaay bi ah léegi yaakaar naa famille lañu ba ñu dalee liggéey ak léegi mu ngi bëgg a yàgg te dañuy ñaan mu continuer euh, voilà quoi di ñaan daal Sénégal yal na fi def jàmm yal na fi yàlla def jàmm voilà lii aussi ñu ñu koy def ay ati at di ñaan nag yàlla may ñu wér ak talak fekkee ba ñu def suñu dixième édition bi ci jàmm ak salaam incha allah. salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp maa ngi tudd Pauline Mendy. di jàngee mode africain couture niveau deuxième année. jàng bi xaw na métti mais soo ci concentré woo rek dina réussir et aussi suñu musée aussi jàppale nañu bu baax am nañu aussi ay responsables yoo xamante ne ñu ngi ñuy jàppale di ñu soutenir ci ñaw bi waaw. dañuy jàngale coupe couture stylisme ak modélisme waaw ñuy invité aussi képp ki nga xamante ni bëgg nga def formation couture ñoo ngi fii ci côté sanc bi. si côté église bi fii côté arrêt encadrement bu baax la wax dëgg yàlla dañuy jàng dañuy jàppale bëggul élève boo xamante ni du jàng bëggul élève buy caaxaan ak buy tardé aussi xanaa di leen invité rek ngeen mën a ñëw fekke ko fee ci centre culturel bi 19h lañ invité ñëpp foofu ah macha allah gëm naa ne dina jaar yoon aussi maa ngi tudd Yacine Niang di jàngee mode africaine culture niveau troisième année di leen wax ne jàng yàggul ñàkk jàng moo yàgg nit amul droit jàng ba pare négliger li mu jàng soo jàngee ba pare danga war a concentré wu pratiquer li nga jàng loolu mooy yoon. mode africaine couture la mu ngi nekk ONCAD fii si côté Arécar ONCAD bi. waaw am na sortie am na ñoo xamante ni tamit pareeguñ am na ñoo xam dañuy jël seen diplôme boo jàngee trois ans da ngay jëlaale sa diplôme soo paree lépp si la bokk. Euh, défilé de mode la waa mode africaine couture ñoo koy préparé ñu ngi koy préparé ay yu yàgg sax bi. ñuy wax invité yi ñu teel a ñëw 18h na leen fa fekk ndax 19h dañoo war a démarrer incha allah. kontaan bu baax rek si waa Modou tiir Couture ñu seen fay daal loolu laay wax.